عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نانا مينغي نوي بوك طالبي في تيو ييب تي تورو توبا شيخ محمد المنتخا ميغا خامن مو في سيرن توبا دي نيان مو ياغ في لول تا اند كو كبر موي يو لامبو غرم جيمي كو نك تي مام شيخ ابراهيم فالدي teg ko ci loxol jëwriñam ji muy sëriñ Amdi moom sëriñ Modou Mbenda mi nga xam ne moo fi jëmmi maam Cheikh Rahima Fall ak mboolem rakkam yépp ak doomam yépp ci seeni taxawaay ak seen pësteef bu kawe muy lu ñu doon ci seen maam ja te am ci tawfeex ju rëy sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax di sant sëriñ Amdi mi nga xam ne mooy jëwriñ ji mu làmboo nag mbooleem njabootu maam Cheikh Rama Fall gépp di xam rek ne liggéey bii ba mu leen koy jox lam ci séentu woon ak la mu ca yaakaaroon def ngeen ci lu kawe njortam ndax wóoroon na ko ne léggéey bu diis la waaye kenn doyu ko ci woon ku dun yéen njabootu maam Cheikh Rahma Fall waaye nam ko séentoo woon def ngeen ko nu kawe njortam kon nag la Serigne Touba waxoon rek lay fàttali Serigne Touba dafa waxoon ne wooteloo nañ ma woote naa ñi wuy si wàcc nañ ñoom man maa ci des ñi wuy si wut nag man wàcc naa ñoom ñoo ci des kon yéen na leen wóor ne la seen maam ja maam Cheikh Ibrahima Fall jaayante woon ak Serigne Touba wàccu leen ko ba nagani kon nag Serigne baa leen di seere ci kanam Serigne Touba te seen bu kawe ak seen kawe ku ko doon nat kenn xam fa mu àgg. mas na maa dégg ci aw làmmiñam mu wax ne moom Serigne Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa booba Serigne Cheikh Jëmb Fall moo fi nekk mooy bi liggéeyub héliport bi su ko àgg mu ne mbirum Baye Fall day daa kiimaane ndax ñoom dañoo bëggu dara wutuñ dara lulu sëriñ bi moo tax li ci gën a kiimaane moo tax li ci gën a kiimaane bi sëñ daam waxee léegi ne suba ñëw na fi. sëriñ am di ci suba ñëw na fi. wax ne poussière bii di wàcc. wax na poussière bii di wàcc. faaw mu dugg ci biir. faaw mu dugg ci biir. loolu nag moom it may wàcc. loolu nag moom Cheikh Mamadou Bassir nee bi muy wàcc. mu jox ko masque bi. mu jox ko masque bi. loolu moo taxoon nanguwumaa jël masque bi. ndax far taqib. ndax far yat far taqib. yow ma taati sama. yow ma taati sama. bidu xaanin mubin. bidu xaanin mubin. yaxsha naasa. yaxsha naasa. haza xasabun alim. ربنا اكشف عنا عذاب الأليم إن المؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وحالوا محلم مجنون إنا كاشف العذاب خليلا إنكم حائلون موي بوسير بو ملني nii كو فك رك اي ملائكه ay malaayika yuy wàcc la di wàcce yërmande yàlla

li ngeen di jànkonteel. ak li ngeen di jànkonteel. kenn mënu koo kenn mënu koo misaal. ndax nit ku bëggul dara. ndax ku bëggul dara. soxlawul dara ci àdduna. soxlawul dara ci àdduna. jël léppam jaay ko sëñ Tuubaa. jël léppam jaay ko sëñ Tuubaa. googu dëgg akuk dëggal. googu dëggu akuk dëggal. moo tax Baye Fall boo xool ci àdduna. moo tax baay faal moom boo ko doon xool ci àdduna. amaatul feneen. amaatul feneen. sëñ Tuubaa képp am Baye Fall. nee na mas naa dégg ko wax ne. illa yaxaadallahu. ما لم يكن ولا يكون abadan li mumkini nee na Baye Fall sax mën naa firi loolu ndax sëñ Tuubaa képp ko am nee na sëñ Tuubaa képp am Baye Fall te li ci gën a yéeme te li ci gën a yéeme ku leen xam ku leen xam xam ne tawfeex ju rëy nit ñoom xam ne tawfeex ju rëy moo nekk ci yéen ndax yàlla may na leen ndax yàlla may na leen ñu xam àdduna lañ yéen Baye Fall yi ñu xam àdduna ngeen ñor ci àdduna lañ. ba noppi ñor ci xom. waaye ci sëñ Tuubaa lañ dof. waaye nag ci sëñ Tuubaa képp ngeen dof. amuñu bëgg. amu leen ci bëgg. amuñu tànn. amu leen ci tànn. amuñu lu ñuy bëgg. amuñu lu ñuy bañ. lu dul ndigalul sëñ Tuubaa la. moom mi nag nee na lim sant. tawfeex ji mu am. ban yónni ko ci yéen. ndigal li kon yàlla na ko ànd ak yéen. ma ñëwaat fii ci turu sëriñ bi. ndax biñ ma waxee na àgg na dem naa ba ci sëriñ bi yëgal ko lépp yëgal ko lépp ak ni liggéey bi àggee ak ni mu demee mu sant ci xolam sedd ci na leen nag boo demee nee leen maa ngi leen di bàyyee ak sëñ Touba yal na leen sëñ Touba fayal boppam kon yéen Baye Fall seenum xel daloon na waaye na gën a dalaat bu baax ndax ni mu ko waxee woon keroog ba sëñ bi sëñ ji dëkk bi ba Serigne Touba di sanc dëkk bi. maam Cheikh Fall moo leeraloon dëkk bi. maam de moo ko leeraloon booba. moo gor moo gor dëkk bi. moo gor dëkk bi. ànd koog magi taalibe yi. raay bi itam. wax ngeen ko léegi. wax ngeen ko léegi. maam Cheikh Fall joxe woon na ci juróom-ñaar téeméeri. maam Cheikh Rahima Fall joxe woon na ci juróom-ñaar téeméeri doomu aadama. te loolu te loolu moo gën a tuuti ci lam def. kon nag kon nag. bu demee ba agsiwaat fii. bu demee ba agsiwaat fii. Serigne bi joxaat leen ndigal li. bi joxaat leen li ngeen defaat ko nu kawe njortu sëriñ bi kon la ca des moom mu wóor leen ne la sunu borom waxoon ci alquran hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tuminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum yen nak da ngeen joxe jëm joxe seen i jëmm joxe seen alal ba desee leen ci dara man de yéen laa gën a ñee sama jëmm nee na yéen la gën a ñee ci jëmmi boppam nee na yéen it la ëpp yaakaar ci boppam ndax yéen xam naa ne sikki sàkkawu leen ndax seen yaakaar jëpp génnul sëñ Tuubaa te ñun ñëpp nag foofu rek lañ war a ne kon nañ sant yàlla bu baax di xam la rek ne na ma ko waxe woon liggéey la buy tàmbali lool it la ko sëriñ bi wax. waaye des na yeneen liggéey. waaye des na yeneen liggéey. yoo xam ne bu agsee. ci dëkk bi ci dëkk bi. sëriñ bi dana ko teg seen sëriñ bi dana ko tegaat seeni loxo. te wóor na ko ne. bu noppee bu noppee. nam ko bëggee rek la koy amee. na ngeen koy defee. kon barab bii ñu doon defar. dafa baaxu ci dëkk bi. dafa baaxu ci dëkk bi. buñ jëfee ndigal. buñ jëfee ndigal. bu yàggee dañ koy fàtte. bu yàggee nañ koy fàtte. wala ñu yaakaar ndigal yaakaar ne ndigal la daa màggat. moo tax sëñ Fall sëñ Fallu Fall sëñ Amdi. moo tax sëriñ Fallilu Fall moom sëñ Amdi Yaasin Fall. bokk ci njabootu u Ibra. bokk ci njabootu Cheikh Ibra. sëriñ bi dénk na ko fii bi dénk na ko li ngeen leeral lépp. mu di ko taxaw mu di ko taxawu. di ko di ko sàmm. ba wóor na ko lu ci teg ci njabootu loxo njabootu Cheikh Ibra. wóor na ko ne lu mu ci teg ci loxo njabootu Cheikh Ibra. lam ci bëgg dana ko am. lam ci bëgg dana ko am. kon sëriñ Abdoul Ahad Ka. yow yilif dëkk yow mi nga xam ne yaa yilif dëkk bi kon nga ànd kon na nga gunge sëñ Fallou Fall moom sëñ Amdi Yaasin te xamee ko noonu bu ko defee ndigal lu ci agsiwaat ba daf ko defee ndigal lu ci agsiwaat ñu ànd ko incha allah ndax sëñ bi daal des na yeneen liggéey yoo xam ne bii ëpp yeneen liggéey yoo xam ne bii ëpp ko waaye ab tàmbali la rek waaye rek kon mi ngi leen di sant bu baax kon mi ngi leen di sant baax di xam le rek ne di xam le rek ne Cheikh Ibrahima ci mujj gi Cheikh Ibrahima Fall ci mujj gi ko yónnee ci sëriñ bi ci njaareem. daa yónnee ci sëriñ Touba ca njaareem. ne ko Mbacke mbaa deseeti nañ fi dara. ne ko Mbacke mbaa ñun deseeti nañ fi dara. ndax dafa bari bopp. ndax booba kat xéewal yi daa bari lool ba jéggi dayoo. mu yónnee ci sëriñ bi ne ko Mbacke mbaa deseeti nañ fi dara. mu yónnee ci sëriñ Touba ne ko Mbacke mbaa dese nañ fi dara. Ah, sëriñ bi ne ko boo demee ne ko. sëriñ Touba ne ko boo demee ne ko. boo demee ne Ibrahima Fall. boo demee ne Ibrahima Fall. la ma waxante woon ci Mbacke Kajoor. la ma waxante woon ak moom ca Mbacke Kajoor. nee ko lu mu gis ci àdduna rek. nee ko lu mu gis ci àdduna. xéewal yu sotti ko ba fees la. xéewal guy fett ko ci ndab li ba fees la. lay lay lay tuuroo ca ndab la mooy lay gis. lay tuuroo ca ndab la la gis fii ci àdduna. waaye la taxoon gis duy ndab la. waaye la taxoon ñuy duy ndab la. ëllëg yowmal xiyaam rek la. ndax moom kat. ba muy jaayanteeg Serigne Touba. da koo waxoon ne ko. da waxoon ne ko. soxlawu lu toll ne ak kawar topp ma ci àdduna. kon moom ëllëg rek la doon liggéeyal. kon nag képp ku yaakaar maam Cheikh rami Fall baye boo sam xel dal bu baax mas naa ñëw ci njaareem mas naa ñëw ci moom Cheikh Mouhamadul Fadal sëriñ bi téye leen ci Touba téye leen ci ak kees booba sëriñ Moussa Alima Gueye ma nga fa ma nga fa Cheikh Mouhamadul Fadal ne Fadal Mbacké ne maam Cheikh rami Fall tey dama laa bëgg laaj tey day dama laa bëgg laaj waaye bëgguma nga tontu ma tontu daanu kat. waaye nag bëgguma nga tontu ma tontu daanu kat. ndax moom daa doon xaritam lool. ndax moom maam Cheikh Ibrahima Fall da doon xaritam lool. sëñ Fall da daa wax ne moom rek képp laa ñëw ci taalibe bi. mas naa ñëw ci moom ne ko damay jàng si taalibe bi. mas naa dikk ci moom ne ko damay jàng si taalibe bi. ba leen sëñ bi téye nag. ba leen sëriñ bi téye nag. Cheikh Mouhamadou Fadal ne ko. Cheikh Mouhamadou Fadal ne ko. dama lay laaj laaj boo xam ne. dama lay laaj laaj boo xam ne. dama bëgg nga tontu ma ci ci te boo dama bëgg nga tontu ma te bañ ma tontu tontu daanu kat. Cheikh ibrahim Fall ne ko bisimilah. Cheikh ibrahim Fall daal di ko ne bisimilah. mu ne ko waaw. ko waaw. sëñ Bamba mii nga xam fi sëñ bamb mi nga xam fi ci njaareem. ak moo ci Mbàkke Kajoor. ak sëñ bamb ma nga xamone ci Mbàkke Kajoor. lu len wutale. lan mo dox seen diggante lu len wutale. nee mam Cheikh ibrahim Fall ne ko ndax jàng nga Mawahibul khudus mam Cheikh ibrahim Fall dal na Cheikh Mamadou Fadal ndax jang nga Mawahibul khudus mu ne ko waaw. mu ne ko waaw. mu ne ko ndax jàng nga mu ne ko ndax jàng nga masaalikul jinaan mu ne ko waaw mu ne ko waxuma nga tontu ma damaa bëgg nga tontu ma leneen mu ne ko waxuma nga tontu ma lool de damaa bëgg nga tontu ma leneen nee na mooy tekk ba ci ko ñaari mbir da gis naa mu ci moom ko moom day ma wante mbàkk kajoor ak mii ci njaareem ñaari mbir laa gis mu soppi ci moom mooy muuraayu bopp bi ak kawar gu weex gi muy bijaaw bi waaye xaw ma leneen lu soppi waaye xaw lu ci soppi ko war la studio fekk sëñ bi da leen na booba sëñ Touba da leen boole aw ñam. maam Cheikh Fall nanguwut a bokk sëñ Fall. maam Cheikh Rahima Fall nanguwut a bokk ak sëñ Touba sëñ Fall. sëñ Fall wax wax. sëñ Fall wax wax. mu ne ko xaj du bokk ak ba. mu ne ko xaj bokk ak borom ba. ne soo sëñ bi ne tëll génn. ne tuuti sëñ Touba ne tëll génn. fekk booba bàyyeegul jëfandikoo gura. fekk na booba bàyyeegul jëfandikoo gura moom sëriñ bi. dindi yàbbiitu gura yi. sëriñ bi daal dindi yàbbiitu gura ya. ne tëll ci kees gi. gi. Fall am am yow muy sa mu ne ko Ibra Fall am yow muy sa wàll. muy ñam wi muy ñam sa wàll ci ñam wi mi ginnaaw mosoo mu daan mu daan mu daan ne tëll. mu daan ne tëll. ne ko Ibra Fall ma woon ci Mbàkke Kajoor. ci Mbàkke Kajoor lay. ak Ibra Fall mii fii. ak Ibra Fall ma woon ci Mbàkke Kajoor ak mii ci njaareem dara wutalewu leen. kon suñ ci kon nga xam ne sëñ Tuubaa tontul na seen fàllu. مام شيخ رايما فال مسنكو بوله شيخ عيسى جن سيرين بي سي نجارم دادي جيل بومو ويخ امبي كو لو نيول فام بومو نيول امبي كو لو ويخ دادي جيل بومو ويخ مي امبي كو لو نيول جوخ كو مام شيخ رايما فال نكو نكو ابرا فال مي دي نكو ابرا فال مي دي bu fekkoon kenn dana ma xam. bu fekkoon nag kenn dana ma xam. mu ne xam na ma ma kenn xamagut. mu ne kon moom ba ma kenn xamagut. daal di yëkkati jox ko. daal di yére jox ko. daal di jël ba ca des. daal di jël ba ca des. jox ko si Cheikh isa jël ko Cheikh Issa. ne ko Issa mii de. bi ma ñëpp xamee. bi ma ñëpp xamee. bu ma kenn kenn doon xamaat. mu ne xam na ma waaye man kenn du ma xam. kon nañ doy loo loolu ci sëñ Tuubaa te yaakaar sëñ Tuubaa te rafet njort ci moom bu baax a baax di ñaan yàlla ñu yàgg koo def bu baax te yàlla yàggal fi Cheikh Mamadou Mountakha yàggal fii sëñ Amdi Modou Mbène ak rakkam yépp nag ndax ñoom ñëpp ay jàmbaar nañ doo xam ku ci ëpp yitte ku ci ëpp pasteef ku ci ëpp taxawaay ku ci gën a bëgg sëñ Tuubaa loolu nag tawfeex la ak fàggu teef goo xam ne seen maama leen ko fàggoon kon sëñ bi na ñëpp ñaanal sëñ Basiru na Baye Fall yi ñaanal sëñ Basiru waaw ci turu sëñ moo Moodu Mbenn